Singuru bena bana, no singuru bena jànk na mën naa la. aywa maa la raw ci loolu rek mën a bàyyee nii. maa ngi nii bàyyiwuma la de ayo liggéey bi rek moo ma téye. bàyyi nga ma de. bilaay ma la un mois gisuma la sama biir kër gii. bilaay liggéey bi la rek. xam nga rek liggéey sama bi yaa ma gën a xam. ah war woon demee rek yaa war woon demee noonu de. mais yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi si jàmm maa ngi yaa ngi def congo ma nii. gisoo def kii nii yaa ma gën a xam. nekk si mbir rek yaa ma gën a xam man. samay samay affaire. yaa ma gën a xam sa kanam gi lewet na de nu mu demee noonu. lewet. nga gis ma loolu gisoo ko waaye jànq dafa am lu may dégg looy dégg dama dégg ci réseaux sociaux bi nga partagé fi ay vidéo ak ay photo ma lay laaj ndax est-ce que yaa ko def walla en tant que meilleur ami bi bi nga nekk ci man loo gis lépp man la sans complexe lu du ko nëbbu yaa sama meilleur ami <laughs> man de bëgg naa loolu du ma la nëbbu dara yow si nga vidéo yeeg photo yëpp maa mhm. ko dugal te yi ma yor na moo gën a garaaw yooyu ah bon moo ci laa dugal waa jànq lan moo dugal ci loolu ne dangaa dégg ay vidéo ay photo yow man li ma yor sama téléphone moo gën a garaaw moo gën a garaaw il paraît waa Ndiaye yow seen problème mu école bii enseignant yeeg état bi élèves yi di grève tey suba ñu jàngi yéen bi année scolaire bi commencé ba léegi xale yi boo boo calculer li njang matul 3 mois de grève suba grève bëccëg tiraillement entre enseignants gouvernement élèves yi bo évaluer li njang ci at bi ni matul 3 mois de tamit lolu àq la day na waa de da ngeen cee war jul nak ben décision bu final mu jeex tak deug yalla parents de la vie sonu nañ te yene xamna ni sonu ne ngeen metti na torop lan ngeen ci mujjé Ndiaye Ndiaye. waaw. man ci bi wax. non non non non Kiné maa ngi dégg ngi tu me posais le problème des enseignants là c'est yow Ndiaye yow mii yow yow yow delloo sa xel yow maa ngi wax ci bi yow yaa ngi absenté nekkoo fii fépp yow di nga nga ma Kiné. ah waa baax na ma

kooku na la la mën a osé di la violer en tant que enseignant. moom de moo def loolu te li ma def nag ku nekkoon jigéen bu nekk. loolu mhm. ngay doxale ndax cas de viol lañu wax viol la du du du du loolu euh, kii loolu oyof viol dafa diis. janq xam naa la de ci sa janq xam naa li nga capable ak li nga capable rama rama waxaloob dof de rama yow it <laughs> rama xanaa xamoo ne maag yow mën naa ne lu yendu ci yow fanaan ci man xanaa kay lii yaa ma ko nëbb te lii warula la woon de li nga def nii warula la nëbbu ma ba à un dernier moment ñépp di ko yëg affaire bi di daw fu ne ma koy gis fu ne di ko dégg fu ne fu ma romb ñu naan ma sa meilleur ami sa lu mu def te Rama xam naa la Rama yow dangaa bëgg bii te nag dangaa yàgg bëgg bii yaa ngi fàttaliku bi ñuy toog fii nga may wax naa ma danga bëgg iPhone 13 bi <laughs> jànq xamal lu ma la waxul soo amee say conseil yi ngay def mhm. am nga sœur am naa ko kay am nga doom <laughs> amaguma ko de nga dem jox leen ko Ah, man do sama yaay de te sama kër ma fekk. problème c'est école bi la lay laaj ndax yéen waxtaan élèves tardé. na la ni est en train de négocier avec les enseignants bon peut-être que dans quelques jours ils vont trouver un terrain d'entente et puis les gens vont aller euh, travailler.

malheureusement ñu bari xamuñu lool président de la république sax su jangul won du am statut bi mu am man côté bobu lay wax yéen laa andal de deug yalla dañoo wara régler li mu jeex tak parce que xalé tamit sonn nañ parents d'élèves yi sonn nañ bu démé ci année blanche mom du bax ci kenn ci yeen njaay wa ablay njaay waa kii nii lan la lan dama may ablay ablaye di nga dof yow yaa ma nar a dofloo yow yaa ma nar a dofloo yow. yow lan la dama bàyyi. Chine yow problème bii nga jël yenn ko nag pour lan la problème bi doo ko yenneeku nga tal sa bopp c'est pas la fin du monde àdduna dafa jeex. dama laa xàmmeetul de moo tax ma sonn ci yow ah! di nga dof de. waaw ah, après continuer waxtaan bi kon en attendant bàyyi la xaaral je suis un peu je suis un peu fatigué là je me ma dem noppalu ci biir ba ci kanam. xëy eh, nga ba dem fa yenn problème yi ci àdduna bi yëpp naan aw ma problème ay boo dofee ñu gis dof bu ñuul bu rafet sax. <laughs> ay sama jëkkër ji bu dofee dinaa sonn de waaye ndaw dof bu rafet. man magam jëmm laa majeur li may def xam naa ko bu baax kon du yow yaay ñëw fii ne dama jox ay conseil su fekkee sama meilleur ami nga nga nga def li ma bëgg <laughs> mu jeex ko ni ñu ko doon daaw defee rek. kon yow li ngay kon li nga wax nii nii nii nii lu baax la nii kon yow da nga jàpp ne yow li nga expliqué nii nii d'après yow li nga wax nii lu baax la. donc loolu moo gis nga man cadre meilleur ami boobu ngay wax moo ma indi ba fii man duma ànd ak yow ci tricherie. du ma ànd ak yow ci ay wax yi ndax si du noonu man dama nekk nit ku direct doxuma ci caaxaan ba may ànd ak yow nag ci fullaak fayda laa la xamee woon bu fekkee nag sa appartement bi nga nekk danga cee boole di ci def boole leneen loo xamante ne bii lu du loolu la nga wax ma parce que man du ma ànd ak nit koo xamante ne bii. day nekk ci naka su du noonu te li waa koñ bi nii di ko waxtaanee ku nekk ñaama sa meilleur ami sa meilleur ami moo ma andi ba fii. man duma ñew taxaw ak yow nek sama mère ami nga ba paré may tok di sétan ñuy wax ci yow yeen naka sudu non man sey conseil soxlaw mako sax et puis wax nga ko sama kër nga nek wala la bëgg nga ju nga dégage nga dem ñen de dina ko xamal wa dina juk de waye bala may juk dina la xamal ni li nga nek ni du way te bu fekke li nga nek ni mom mo lay jëmele kanam yaangi nax sa bop wa jugal nga dem. len nak dina la ko xamal. gis nga aduna bi du agn du rer ta lu mata sedd la te gis nga li ngay def bis dina ñew di nga mat sa loxo bi cax te sa gas waaw jugal conseil conseil Comment encore C'est Monsieur Farah. Monsieur Farah. Monsieur Je ba. man maa le téléphone. en fait euh, c'est monsieur qui m'a donné ton numéro. Hmm, monsieur voilà man suis la doon woo donc euh, monsieur Ndiaye ma xarit là. c'est un ami d'enfance nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Hmm. alors on avons mis mon en place de ces deux. Et vraiment, ça fait plaisir de rencontrer également une ancienne élève. mais je sais que seytaane dafa bari parce que bon dajee M. Ndiaye je waxtaan invité ensuite je am intention jël ay vidéo vidéos ak ay images pour échanger avec iPhone 13 donc là ça pose problème alors comme ça je la te nekkatul par rapport à ça mané ni waxtan à ak yow ci njëkk ak teranga parce que aussi monsieur Ndiaye est un responsable. responsable. un père de famille aussi donc imaginez tay njabootam jot ci lolu à travers les réseaux sociaux quelle serait la réaction de sa famille les conséquences. man négocier indiwuma fi négocier taxawuma wax. waaw mais monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye mais. xanaa mais monsieur Ndiaye. gëj naa laa gis. waaw gëj naa monsieur Guèye. bàyyi nga am jàmm. waaw ça va ça va. temps yi bàyyi nga ma de gëj naa laa gis de. waaw xam nga liggéey bi rek. moo tax ma fi gëj quoi mais damay gëj ñëw seen boor yi quoi boor ni ça va de. waaw dama xaw a sonn nag. oui loolu la loolu la fatigué quoi. oui loolu la. mais iPhone 13. waaw lu muy jar. iPhone 13. waaw iPhone 13 maanaam ñaata. laa koy jaay. lan dan danga ko wala me Moussa Ndiaye mii moom est ce que ça va ama dëgg lu muy jarama ko prix rek mu dem nii mais grand bi ça va pas de li nga wax yep man maa def video yi maa yor ma yor fotay te moom maa ngi moom nañ hmm. waaw waxtaan mm, mm-hmm. mooy lan. waxtaan par rapport ak li ma bëgg. ok. mooy lan wax naa ko mu indi iPhone 13 te sa 24 euh, heures laa ko may mu indi ko. mais Rama xam nga déglu bu baax mais est-ce que jàppoon ni monsieur Ndiaye mérité na leneen lu dul lii sa ancien maître bu def ci yow xam-xam. que japon ni amna benen beneen delloo njukkal boo ko war a delloo njukkal loolu xam nga ne kilifa la. oui. kilifa amna ben benn cër bu mu wara def. si d'accord. wa pa top ay élève non bu ñu dugg fofu parce que xam nga nettali xuloo li indi xuloo ram. légui nak man sa conseil yi may jox soko ko soko amé am nga ay doom am nga ay petit frère genre. Mhm. ma jox leen ko. Ah man loolu soxloo ma ko dégg naa dégg loolu ba taay merci. ah bon waaye. loolu nga may tontu. loolu laa lay tontu. kon daal tu n'es pas prêt à collaborer jox ma vidéo yi. du ma ko def sax xalaatuma. ok d' accord c' est bon de toute façon tu as mon numéro. waaw ah. bu sa xel nekkee ci tu m' appelles comme ça ñu waxtaan c' est bon. sëñ bi waaw baax na. baal ma nga may ma. ah danga may dàq. bien sûr dama lay dàq moom su amee lu muy wax dañ ñëw def lu ma ko wax mu baax daa am quelque chose may def fii. d'accord merci mais damay faral jour incha ok voilà moo gën a fier quoi. Ah, ça va sinon. La activité yi. ah nii rek kutu ça va bien et la chaleur. ah ça va pas. ah bon. ah ça va pas Yo, ça, xam nga ni ça va pas ah mais bon c'est la c'est la vie hein. Kine. Ah, euh, dootoo Bonjour, jabar yow suñu sër je dirais même que suñu yaay nga parce que nous avons cheminé ensemble et puis ñu yàgg. waaw j'ai ko de souvenirs en tete su may su may waxtaan ak yow vraiment hmm? ensuite nga nga muñal njaay di ko jàppale ba moom à chaque fois vraiment day feddali kóllëreem yow ak moom ci ci man te loolu dafa dafa am solo parce que dafa xaw a tumuraanke ci ci jamono ji vraiment loolu euh, du mënuma koo njàkk bañ a wax parce que dafa am solo ci ménage dafa am solo ci sëy mais nak jappal ni lepp lo daan jàppalee njay diko taxaw di ko tay la ko gëna soxla ci yow. <laughs> Boubacar bu ngeen takkee jabar wax ko rek. non loin de là. <laughs> mo gëni <laughs> non non non quand même non njay mom xamna ni mom xamna ni romb na fofu man sax bon mën naa mën naa espérer mais njay mom xamna ni waxi takk jabar mom c'est derrière lui ndax yow loolu sois tranquille xam nga la fois dernière da nga situation bi nga xamante la Ndiaye alors dem ci moom ma ak par rapport à ce comportement là mais xam nga ki ne jamono ji dafa dafa doy aussi ça dit qu'il kenn mënul mucc ci ñoom encore une fois de plus mais man li ma neex dans tout ça mooy njaay dama ko xam ñi ànd ak moom yëpp njaay moo ñu ëpp fula moo ñu ëpp personnalité moo gën te moo ñu gën a parfois du ma tit dara ci moom mais dafa am lu ko arrivé loolu moo waral changement de comportement bi am dafa tase avec euh, benn ancien élève am ci benn librairie bu mu demoon pour jënd benn livre alors comme xamante nañ ñuy waxtaan échangé alors xale bu jigéen bi fexe ba ba invité Ndiaye këram mais tendre ko piège. tendre ko piège ci ci naka bon mandal bon li m'expliquer bon nee na ma njaay dañu séq après mu jël ay vidéo bon bu mu nekk ak ndjay fexé également ba am image. image ci naka ci ban ci ban image ci naka dafa séq ak mom dara. moi je ne pense pas je ne pense pas parce que ndjay ni ma mel ak mom bu séqoon ak xale bu jigéen bi kanam mo xam ne mën lañu séq. mais Ndiaye sequl ak xale bu jigéen bi encore une fois mais xam nga nag mooy li ma expliqué daal les nouvelles technologies téléphone loo ci bëgg a def tey da koy def man su ma amoon sa image tey ñu toog ni li ma ci bëgg a def mën naa ko def xam naa yooyu la ba pare xale bu jigéen bi ni ko soo ma joxlee iPhone 13 dinaa jël vidéo yi tasaare ko également ci réseau sociaux yi. <laughs> Boubacar <laughs> damay sant yàlla d'abord xam nga lu tax amul lu ma xalaatul damay tooñ nee sax di jël rek mais njaay tey bu takkoon jabar dama koy boot mhm. ndax damaa xam ne doomu jullit la te am na droit ak quatre femmes. mu neex mu nakari dama koy accepté bien vrai que nak ben jigen sax bëggul wujju mm-hmm. mais problème xale jigen ni jusqu'à preuve du contraire la wax mm-hmm. man geumuma ni sama jëkkër mo def waxuma la sax de ci ginaaw mais ci wétam ak lu munti xew parce que man kima ko sékkal xamna kan la ben y mo ci am mm-hmm. man ak mom musuñu am détail wala problème ci biir kër gi mu am 24 heures. lan moo tax loolu dal ko ci biti ma nekk ak moom ci biir kër gi te amul audace su jàkkaarloog man expliquer la situation loolu rek mooy sama problème. Hmm. problème gën na koo diis fii ma partagé ko ak moom mais li xew léegi ñëpp xam nañ ko li tendance la xale yi jigéen yi. amul lu ñu capable di def. bien vrai que nak ndogal bo gis tank borom nga ci dem nafa, peut être que xamul woni ni nga fay xaar bref xam nga lan moy problème <laughs> ma ngi ci wetam ak lu munti xew mais dal dima lay ñaan ki ne moy li nga mujjé wax dal loolu gën ko jappalé gën ko épauler n'est-ce pas gën également di waxtaan ak mom pour que ensemble ñu jëm résoudre <laughs> loolu amul ben problème voilà, voilà. awma ci ben problème voilà, voilà c'est ça c'est parce que xam nga aussi il est un il est un fragile. mais nag sañ-sañ tudd naa la maa ngi xool sa yëre bi bëgg laa wax sañ-sañ nga. no mais lu ne xalaat naa ko. no ñaar la. mais jëkkër sañ-sañ nga de. ñaar la benn bi Ndiaye laa koy jox après Ndiaye laa koy jox xam nga man lu ma sol mu sol beneen mais mais del ñëw ma lay ragal. non jeex na. ah de yii mën naa ko nag. mais je suis très content de toi. ñoo far ñoo bokk lépp. Sary yaa ngi ma woon ne ma yaa nga fa nga nekkoon. non ñun xale la ba. dafa yàgg man yaay la. Ah, waaw waaw wax nga dëgg yàgg na. <laughs>